force ñu koy jàngal lañ koy jàngal bu yàggee dana dindi croix bi mais ña nga xam ne muy julit ñi sama classe gi jël suñu njaboot yóbbu ko ci école privée catholique xalaatuñu ni dañ ko fay yóbbu pour nu def ko catholique catholique dañ ko fay yóbbu parce que éducation parce que sérieux parce que discipline parce que générosité ba nga xam ne moom lañ fa yaakaar te gis ay résultats loolu moo tax donc pour man euh, ce débat wallahi dañ ko war a dépasser léegi nag Sénégal dëkku dëkk bu doy la dañuy fekk lu lu amul benn benn benn benn yenn poids yi ñu bëgg ko tawil parce que tey à la suite de la baie gis nañ ñu waa kër ñàkk jàmm ñu commencé la nga amu ci coow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ñu finalement ñu détourner de l' essentiel bi nga xam ne moom la labé bi woote ne Sonko concentré wul ca la nga xam ne mooy les priorités du Sénégal mais tey bu fekkee ne Ousmane Sonko nekkul ka doon nga xam ne moom am na

waaw dellu siwaat na gannaaw transition bi ci li nga xam ne mooy leneen la ma leen wax leneen li mooy lan mooy jàkkaarloo naa ak yéen ay fan ci gannaaw euh, wax leen ni Sabodala lu mat ay euh, téeméeri téeméeri doomi Sénégal ñu ngi fa jàppante ak la nga xam ne mooy waa SGO mooy Sabodala Gold Operation mooy ña nga xam ne ñooy seen kilifa. la ko waral moo di affaire indemnité seeni heure supplémentaire la ñu ne dañ leen ko war a fay waaye ak leneen ak leneen loo xam ne dañ waxante woon ak ñoom dañ leen koy fay te dellu si si keroog ba nga xam ne le premier août ba emploi yi décidé nañu dem grève la ñu tëj restaurant bi xamal leen ni droit de grève dafa àndul ak la nga xam ne mooy toog fa di lekk la nga xam ne mooy société ba lañ koy jox waaye it indil nañ leen ay bus ne leen pour ñu génn camp ba gannaaw bi ma leen xamale nii kii di euh, Birame Souleye ndëgam moom mooy le ministre de l'énergie Yankoba Diémé ba nga xam ne mooy le ministre du travail gannaaw bu ñu leen doon xaar foofu demunu fa gannaaw vidéo bi sant yàlla lu bëri bougé na parce que ci ngoon soosu délégation dem na fa bu woon ànd ak préfet ànd inspecteur du travail waaye kilifa yu bari yoo xam ne gouvernement bi yebal na len fa nu waxtaan ak ña nga xam ne mooy employé mais aussi ak waa IGO sant yàlla même ngoon bi euh, met nañ en place la nga xam ne mooy benn procès verbal d'accord pour gars yi mën a delluwaat dem tàmbaliwaat seen liggéey barki dem ba ci guddi comme ni ma leen waxee taw bu metti moo amoon biir Kédougou et consort tax na l'inspecteur Mamadou Ba ba nga xam ne moom la ñu santoon pour mu defar procès verbal bi mu yéex a defar procès verbal bi euh, démb ci journée bi it euh, jéem nañu contacté waat ñëpp pour xool la nga xam ne mooy accord ba nga xam ne am nañ ko barki démb ca ngoon fa mu ca toll. démb it toute la journée la nga xam ne mooy inspecteur bi mu ngeen ca liggéey ba ngoon la procès verbal bi pare procès verbal bi li mu tënk mooy dañuy continuer waxtaan wi dañuy continuer waxtaan wi en attendant employé yi dañuy delluwaat euh, reprendre la nga xam ne mooy seen liggéey loolu la ñu waxtaane employé yi dañuy dellu reprendre seen liggéey mais la ñu doon xaar ci waa SGO mooy ñu ubbi restaurant yi bàyyi nit ñi ñu continuer lekk deuxièmement lañ doon xaar si ñoom mooy euh, ñu arrêté di leen yónnee lettre d'explication demande d'explication pour wax leen ni dañ leen di génne wala dañ leen di bàyyi foofu ma wax leen ni euh, fan yii nii Kéwoulo dina fa dépêché foofu ca la benn équipe ba nga xam ne euh, dinañu mën a suivre les filles à la lettre mais li nous, li nous, gëm moi, tey solution de nous trouver parce que démb ki nga xam ne Mamadouba Mamadou inspecteur du travail pare un procès verbal bi la ca des mooy waa SGO signé que ñaari point ya nga un restaurant yi deuxièmement arrêter di envoyer courrier yi euh, euh, courrier euh, demande d'explication yi bus nga pour nit ñi ñu daal ci d'accord na tamit d'accord nous grève comme ça ñu continuer bi ñu relancer di mais wax ni nañ fi intéressant expliquer

procès verbal bi signé wuñu ko le matin donc xalat nañ ni ña wara monter kaaru suba si du ñu liggéey ñu yaakaar ñu wara monter kaaru suba si buñu waccé ñu wara monter kaaru ngoon ñoom ñoo war a liggéey mais jusqu'à présent ak mo guma retourner ni SGO moy société ba signé na protocole d'accord bi parce que ñële paré nañu taxaw nañu pour ñu dem reprendre liggéey bi mais il faut carrément nous signer protocole d'accord bi donc fofu lañu nek ñu rappeler waat encore à chacun ses responsabilités wax leen ña nga xam ne ñooy waa SGO pour nous signer protocole d'accord ba nga xam ne waxtaan nañ ko ak ay gor gor yi nangu comprendre la difficulté parce que comme ni ma ko waxee amuñ ci benn intérêt liggéeyuma SGO liggéeyuma ci employé ainsi de suite mais Sénégal tey fu mu toll lépp lu ñu gis loo xam dafa indi jafe-jafe suñu devoir la ñu jóg waxtaan ci waxtaan nañu ak kilifa yi yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ko coow li porte de sortie am nañ ko donc ñu ngi xaar tey ci journée bi ña nga xam ne mooy waa SGO nous signer protocole d'accord nous arrêter de nous envoyer des documents pour nous délo à la la, la norme mais ma xamal que pratiquement 800 personnes ñoo que bir kaw sabadola bi 800 kon euh, jurum ñetti témiri nit ña nous xamné nekkon nañu ci bir camp bi ñu génné len ñu ngi tollu ci lu mat junni ci lañ ma wax mais comme nous ma nga waxé yoy

mbokk yi troisième point bi laay dem ak yéen ma def benn transition vite fait. waaw mbokk yi euh, troisième point bi gannaaw bi ma leen nuyee gërëm leen ci taxawaay bi ngeen fi nekkee mooy gis ngeen depuis quelques jours ña nga xam sama confrère journaliste d'ailleurs je suis très mal à l'aise de parler de ça